Il est beaucoup question, dans la banlieue, de la privatisation de la VDN 3 qu'en est dañ ci bëggoon am réponse yu leer leer loolu jàpp naa ne bu fekkee dinañ ko def dinañ di coow loo xamante ni dara jaru ko ci et liñ ci dégg mooy Eiffage ci boppam mooy def pression ci gouvernement bi pour bañ a perte yi nga xam ne ñooy jaar ci autoroute à bi pour ñu privatiser li nga xamante ni mooy VDN 3 bi loolu jàpp naa ne coow lu rëy indi te jaru ko alors beneen bi ci topp comme 3 minutes rek la ñu am feera bi daaw dama taxawoon fii kaas y a un début de solution ñu ngi la ci gërëm bu baax di la sant cent la ñu bëggoon ñu jox ñu vingt c'est c'est c'est une première ñu ngi leen ci sant bu baax a baax donc kontaan nañ ci loolu bu baax par rapport au rafistolage aussi de la route départementale 103 loolu aussi ñu ngi ciy sant bu baax a baax et di ñaan aussi ngeen mën a dem au-delà bi ma nekkee ministère u Karim Wade ministère des infrastructures il y avait une opération zéro nid loolu dafa leen doon noppal yéen ministère yéen ministres yi zéro nid de poule c'était alimenté par euh, euh la TUR le FERA c'était géré par le FERA donc dafa nekkoon loo xam ne lu opérationnel la lu gaaw loo xamante ni nid de poule bu am Dakar rek rapidement nit ñi danañ ko mën a régler ci guddi gi lañ doon liggéey nit ñi bu ñu xëyee oto jàll ci comme si de rien n'était mais tey boo demee cité kër góor gi wala nga dem en banlieue nid de poule yi ni mu mel et loolu il faut nga jaar ministre wala jaar ci directeur général bi loolu yëpp war nañ ko mën a mën a bu fekkente ni opération zéro unité de poule bi ñëwaat na monsieur le ministre la route des Niayes demandé naa ko ministre des finances keroog mu waaf alors daaw dañu ko demandé woon ñu wax ñu ni euh, mars 2023 dina opérationnel alors ba léegi ñu ngi ci novembre 2000 2023 nous voulons une date dans le rapport vous nous avez dit que euh, fin prêt pour le démarrage date lañu bëgg pour mën a xam yëmbal sud Caaroy Gaar ak Malika lan moo tere deux fois deux voies yi jaar fa et loolu date la ñu bëgg vraiment alors par rapport au financement bi nga xamante ni waxoon naa fi daaw monsieur le ministre des finances euh, les communes traversées par le train express régional nous sommes 16 ou 17 Yeumbeul Sud en fait partie la BAD avait mis à notre disposition 7 milliards de francs CFA ça fait 16 ça fait 6 ans ba léegi jotuñu li nga xamante ni mooy suñu financement boobu wax nañ ñu duñ ñu ko jox xaalis il nous avait demandé de proposer des des projets pour que ñoom ñu réaliser ko APIX mais nañ ñu wax xaalis boobu parce que ñun ñoo ko moom parce que y a un manque boo xamante ni terre bi dañu ko indil par rapport aux euh, emplacements yi nga xamante ni dañ fa daan jël ay tax maa xam patente la moo xam euh, leneen la et loolu boobu ba léegi jotaguñ ko ñu ngi leen di laaj monsieur le ministre onze ralentisseurs yi nga xamante ni moo am à chaque cinq cent mètres gaaru péage lan moo donc loolu bu fekkoonte ni defar nañ ko defar bu baax sa à la mais comme defar bi baaxul ñu lay laaj pour lan loolu